gouvernement bi nan la euh, nan la war a taxawee euh, entre sa responsabilité de pr de préserver les intérêts des investisseurs mhm. et donc le climat des affaires ak euh, cette nécessité quand même de prendre en charge cette grogne mhm. populaire concernant l'appropriation Euh, par des tiers des terres de la de la de de de la de la corniche et du littoral. nan nan la war a taxawee. bu fekkee littoral bi dañu bëgg ñu accéder ci littoral mooy yoon nit ñi mun nañu le gouvernement xam nga boo xoolee par exemple li ñuy def ci corniche bi ñuy aménagé le gouvernement Macky Sall di ko def la projet sur la corniche la. y a eu un projet de vingt milliards. conduit par l'AGETIP mais ah, projet lan moo lan moo lan moo nekkoon donc le gouvernement mi ngi koy aménagé. de Dakar à fii ci xaw ma Almadi phase. buy dem ba ay Cambérène Diamalaye c'est un c'est un un grand projet pour que permettre population ñu accéder foofu loolu mooy en tout cas niseur bi. d'ailleurs léegi boo xoolee foofu dafay fees dell. Ah, les gens se les nañ ko. donc kon nit ñi soxla nañ ko gouvernement bi ñu koy def mairie de na ci liggéey la c'était l'association fa dem si yàlla sa fa Ousmane Tanor Dieng avait même participé à promouvoir un peu euh, l'association des pratiquants de la corniche parce que sa simple présence était à l'époque jamonoy Abdou Diouf doon na euh, inciter. à cette pratique sportive la mu dem ba populariser am succès foofu ma j'ai des amis bu ñu rombee ci corniche bi foofu Dakar bu ñu ñëwee Sénégal mais ils sont séduits par ça que les jeune soient la en train de faire du sport au bord la mer c'est c'est magnifique donc c'est pour ça que xëy na état bi di côté di ko aménager loolu c'est normal mais derewul nit ki mën a am hôtel am résidence am leneen dama lay jox un exemple et puis parfois aussi il y a beaucoup d'escroquerie dans ces débats là j'ai entendu sur des télévisions les gens dire que gis nga Mohamed VI Casablanca dafa toj kër yi nekkoon ci plage mais c'est faux c'est la restructuration urbaine le roi a considéré que am na ay population yu fa dëkk yu néew doole day dégrader environnement bi foofu dafa leen restructurer déplacer leen ñu dédommager leen ñu dëkkal leen feneen ñu jox foofu ay hôtel ay restaurants. pour que ñu implanter ak ay maisons de luxe pour ñu implanter ko foofu. parce que c'est une des investisseurs investisseurs yi ngay ay emplois créer richesse. donc loolu aussi am réew il faut que ñu nangoon dafa am il faut mu am nit ñu am alal ak ñu ko amut ñi am alal il faut ñu investir àddina moo bindoon noonu mais mu ñëpp mënuñoo yem nag wax dëgg yàlla may mun a. mais mais mais mais tamit am na loo xam ne dafa choquant xëy na nit ñi côté corniche bii la gën a bàyyi xel. Mhm. mais au niveau de Wakam. de mhm. la bretelle de de de Wakam jusqu'aux Almadies. Mhm. am na côté boo xam ne ça a été épargné bu ñu fa defoon des projets des projets euh, touristiques. Euh, nit ñi liggéey fa peut-être que sa n'aurait pas choqué mais ce qui choque c'est-à-dire à partir du rond-point le le euh, fi président Macky Sall dëkk ba ci biir jusqu'au fond mais ay boromi barke ñoo ko jël def fa seeni kër dëkk fa obstruer également l'accès de le droit euh, d'accès des des des des populations. ça aussi c'est une pratique. zone mais si gis nga président Macky Sall këram bi rond bi gis nga boo wàccee. jaar marché de la divinité. non non non non que président Macky Sall rond point bi. Mm-hmm. koñ bi mu jàkkaarloo. boo wàccee boo wàccee foofu da dañ ko tabax yépp te ay kër la. Mm-hmm. ensuite ba ñëw fii fii nii. waaw mais mun na foofu aussi foofa c'était une plage aw ma de mais kenn daaw fa dem. mais c'est c'est c'est gis na am na fi par exemple am na benn projet xam ne bokk na ci projet yi ñu du tudd borom sax parce que bon bëgguma tooñ kenn ci projet yi ñu arrêté foofu ci zone boobu. foofa kenn daaw fa nangoo tabax wala dëkk fa dañ naan ko fa tabax dee un investisseur sénégalais bu nekkoon bitim réew moo ñëw jënd terrain ba au nord de euh, ci état bi investir fa dafa dafa def projet fi toll nii kenn nangu fa mosoon na ñëw d' xam nga aussi c' est pas les plages qui sont des plages de baignade wala fu nit mën a dem xëy na mën ngaa digg nag toog ci wetu foofu féexlu fa am na gaa yi def nañ fii boo xoolee fi nga ci booru Muscat de la Divinité jógee foofu jógee Kër Macky Sall mairie bi la xaw ma état bi xaw kan moo ko def mais amee naa ñu fa ay bancs publics nit ñi mën fa feexlu a sangoo euh, wu ma dara défendre ma dara mais aussi dama bëgg lu ñu ciy def rek nit ñi waxtaanee ko xool quelle la meilleure solution mais li wërta wóor moo di àddina foofu man di dem au niveau des bords de mer il y a des villas de luxe il y a des de luxe il y a des de luxe loolu mun Sénégal comme au niveau de la corniche des Almadies on a vu que y a toute cette bretelle là euh, a donné ça à des ñu fay ñu ñu def fa ay restaurants di di fa jaay ñu jox ay sénégalais ñu def fa ay restaurants di ci daan daan seen doole mais tey boo leen bëggee jëlee foofu au moo tax man la toujours dina am ay hôtel ay restaurants ak nit yu fu nit mën a fu fu fu fu bakkane fu nit ñi mën a toog feexlu fa lekk fa wala waxtaane fa. de petits commerce comme ça des cafés des restaurants mais c'est des sénégalais ñoo fay liggéey bu dee de grands hôtels aussi c'est des sénégalais ñoo fay liggéey donc. pourquoi donc yow jàpp nga ne dañoo war a am état bi dafa war a am courage euh, assumer euh, l'aménagement par des investisseurs euh, du du du littoral. et de la Corniche forcément dafay am gis nga état dafay am courage aménagement peut-être xëy man nag aussi sama mentalité la mais man pour man état. dafay xool lan moo koy jëriñ dama lay jox un exemple ba nga xamante tey fii ci l'aéroport bi gars yi saax saxee ku ne séddoo terrain yi. BOA. fii yëpp aéroport xam nga ban ban idée laa ci jëkkoon a am ma bi ñu toxalee aéroport Blaise Diagne man dama dikk man ni président Macky Sall mais monsieur le président cette assiette foncière de six cent ectare la man ngeen ko valoriser mu ni ma naka ma ne ko xam nga nan ngay def je connaissais des investisseurs chinois qui spontanément m'ont saisi pour faire une proposition de d'acheter ça sur la base du barème en cours cest à deux cent cinquante mille francs le mètre carré six cent hectares ma ne ko c'est une valeur commerciale de mille trois cent milliards que vous pouvez avoir en recette extra-budgétaire. c'est ce qui est prévu sax. c'est ce qui est prévu xaaral ma ñëw rek ci affaire bi. man leen que nañ ko def noonu bu ñu ko defee noonu vous allez le vendre la première réponse mu ne non mais après gars yi dañu fi indi coow rek ma ne ko non li ñuy indi coow mooy lu lëndëm. mais bu faites un appel d'offres international des investisseurs chinois de Dubaï en partenariat avec peut-être des Sénégalais ou des Américains peuvent même vous proposer plus ma ne ko li ngeen di def moo di vous pouvez faire par exemple dans le projet ay cahier de charge ba nga xamante ne respecte ay bois verts ak wala ay cours d'eau wala ay lac comme ni ñuy def ci yeneen dëkki ay aménagement urbain mu ne ma wëy mais c'est intéressant mais aéroport militaire la soldats yi dañuy cas ma ne ko déet loolu du raison aussi aéroport militaire la yéen am ngeen base aérienne à Thiès bu ngeen dikkee même ci cahier de charge bi ngeen imposer investisseur bi mu defal leen aéroport militaire à Thiès ma ne ko mu nekk même double avantage la militaires yi ils seront contents d'avoir un aéroport moderne et neuf en dehors de Dakar et en plus de cela l'aéroport militaire de Thiès pourrait être un aéroport de dégagement loolu à l'époque euh, Abdoulaye Daouda Diallo était ministre des finances je lui parlé mi may dégg parce que c'est pour moi c'était une idée que je propose à mon pays mais écoutez on n'a pas suivi ginnaaw bi mu dégg ñu dagg nañu trente hectares jox nañu ko CDC ma ngi koy morcelé di ko jaay. donc pour moi j'ai plus d'ambition que ça. oui oui mais peut-être que après ils ont réduit leurs ambitions à la baisse. Mm. mais euh, c'était une bonne idée ils ont pris trente hectares ils ont confié ça à une filiale de la CDC la CGIS mu jaay ko. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'État. Pour, pour, faire des aménagements je, je pense, avec le programme je, de 100 000 Je pense que l'État. Mais l'État a collecté 60 milliards. Ah, Et am na Sénégalais yu ci accédé ñoo xam ne euh, xëy na bu ñu ko defee woon neneen du ñu ci accédé. dañ ci doon accédé boo ko joxoon chinois chinois jënd ko pour def ko kër wala def ko kii da koy jënd pour investir def ci un projet jaay ko ay sénégalais xam nga yooyu yëpp état da koy négocier. boo dikkee par exemple nga ni ko écouter da ngay def parce que boo xoolee dans euh, les projets partout dans le monde soo ñëwee defar benn cité bu moderne ah dafay am des quotas de de logements sociaux boo dikkee nga ni ko da ngay koy imposer ay quotas de logements sociaux sénégalais bu nga xamee ne dafa néew doole dina fa mën a am ak sur la base de ces quotas là ko dafa am. dans tous les pays au monde affaire réew yi nga xam ni daal euh, ñoom la ñuy jéem a roy wala ñoom la ñuy jéem a nuróo yooyu yëpp état da koy discuter au mieux des intérêts de la population donc jox ko un chinois ou un euh, gars des Émirats arabes unis ou un russe ou un américain n'empêche pas état bi mën na ci am li mu bëgg pour la population